waaw dañuy wax onsi billahi mina seytaani rajim man la soxna Awa Gumba la ñun ñoo ànd ak sëñ Mamoun Mbacke ñëw fii Daaru Salaam muy suñ première jour ñu kontaan ci torop am ci fierté ndax sëñ bi daf nuy fekk New York ànd ak ñun wàcce boppam yaatal ñu ba nga xam ne ñun ñëpp suñu xol dafa sedd tey biñ ñëwee ci màggalu Kazu Rajab gi mu indi ñu ba Daaru Salaam suñu xol dafa gën a ti Mbacke dañ koy ñaanal rek fan wu gudd ak wér-gu-yaram waaw loolu rek lañ koy ñaanal Mbàkke ci barke baayam ci barke maamam kontaan nañ suñ xol sedd na guy ndaxte màgg nañ ba toll ni mosuñoo ñëw Daaru Salaam kon bu ñu fi tegee suñ tànk dañuy dañuy sant sëñ maamam dañ koy sant bu baax sant goo xam ne am na fu mu commencé mais amul fu mu yem suñu xol sedd na guy ñu ànd suñ jëwriñ sëñ Modou Gueye moom tamit mu jiite daayira ba ca New York moom ñoom soxna Far Samb ak ñëpp ñu ànd liggéey bi liggéey bi rafet dara ñaawu ci ñaar fukki at ak juróom kon ñu ngi kontaan di sant sëñ bi bu baax baax di gën a yokk di sant sëñ bi jërëjëf. Serigne Abo Mbacké di Serigne Abo Mohamed ibnu Cheikh Mahamadoul Mamoun dafa am gan goo xam ne mën naa bañ a tudd sax gan waaye dafa am mbokkam di rakkam goo xam ne daa ñëw ci këram te kii ñëw ci kër gi amul kenn ku fi jëm si ku gën a ñor waa dëkk bi jëmmam ji sëriñ bi woowoon ak njabootam ñu àndandoo ak moom di ko ko teerul ba gan gi agsi sëriñ bi war a yëkk ci kàddu cant yu jëm ci taalibe yi ndax gatanu gii ngeen ko gatanul ganam gii ak ànd gi ngeen ko ànd ak moom waaye yëkkatiwaat kàddu yi cant yu jëm ci sëriñ Mouhamadul Mamoun mii moom Cheikh Mouhamadul Fadal mu koy wax loo sëriñ Cheikh Anta di jëwriñam mu ànd ak ay rakam yëpp kon dañuy maase déglu sëriñ Cheikh. kaddu yi nga xam ne mooy kaddu yi sëriñ Abo Mohamed te sëñ Modou Mamoun wax ko ne ko kaddu yi sëñ Abo mooy sama yoos yaa yore suñ kaddu yaaru kaddu yëpp yaa koy wax kon ñun ñëpp ñu maa sa déglu sëriñ bi sëriñ bi wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ne sëriñ Modou Mamoun sëriñ Abo Mohamed nee na mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp waaye nag di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mamoun mi ak ñi mu àndal nee di ko xamal ne mbooloo mii fi teew wóor na la ne bu woote bi yaatu woon wala mu doon luy yàgg nee na mbooloo mu mi fop da nga ko fi gis ndax mbooleem ñi aju ci Daaru Salaam muy sëtu borom gaawaan di doomi Serigne Modou Mamoun wala muy taalibe ci kër gi ñoom ñëpp am nañ yéene ci Cheikh Mouhamadul Mamoun mii ndax Cheikh Mouhamadul Mamoun bi koy andi ci turandoom nee na booba ñun ñi ay tuut tànk lañ waaye lu weesu jàng alquran mokkal ko mokkal ko laxasaayu di jàng ay xasaayit ba dem bitim réew jàng fa ba andaale lijaasa yu bari jël lépp lem ko def ci walis jënde ko ak taalibe jënde ko ak na way juróom defoon rek na way wa defoon jaay Serigne Touba jaay njureel gi ba noppi ba noppi ne ko ginnaaw boo joxee njëg na ko ginnaaw ma joxee njëg googu nag joxaat naa la ko addiya naa la ko addiya ci tànk yooyu rek la sëñ Moudou Mamoun di dox moo tax xam ngeen ne bis xat na ci moom lool na waaye mu bàyyi lépp ne fa ko sama wayjur daan defe ca daaru salaam falaa koy defe ji sëriñ aboo nag nee na ah, gan gune am na ko gan gune de am na ko waaye nganuk sëñ Modou Mamoun gii wuutalewu ko wuutalewu ko ak ba sëriñ Touba jógee ci géej gi ñëw gane si maam Cheikh fii lépp loo xam ne maam Cheikh Anta defaloon na ko sëñ Touba. bu sëñ Aboo mënoon a def lu ko ëpp. dana ko def dana ko def. waaye mbég mu nag mbég mu maam Cheikh amoon. am na mu ko raw. Aboo am na mu ko raw. ci tànki sëriñ Modou Mamoun yii. Eh, nee na sëriñ Aboo mi ngi lay ñaanal. nga yàgg fi lool. ndax lii kat nga def sagub daaru salaam la. nu bañ a nu bañ a ci bis bii. ci la ko tedd ka Cheikh Mouhamadul Fadal. di Serigne Touba bu wér. fii ci Daaru Salaam àdduna. muy bisub tay bii. muy bisub tey daan ko màggal. sëñ Fallou daan ko màggal. di ñëw di fanaan si fii. ci Daaru Salaam. ci guddig tey jii. wala guddig bi gi loolee la sëñ Modou Mamoun di màggal di topp tànk yooyee lu ci bëgg rek yal na ko ko suñ borom defal sëriñ Abo nag nee na ngeen xam ne màggali kasu rajab daanaka ñun fi mu ne wàcc nañu daanaka ñun fi mu ne sëñ Modou Mamoun gii mooy sunu màggalu kasu rajab bu ñu demee Touba it ji rek lañ fay wuti màggal nañ fii nag bu sëñ Modou Mamoun agsee rek mbooleem lu ñuy wuti ca màggal ga ku ko ñaan fii ci Daaru Salaam am ko te it ku ci am looy werante soxla si la gën a ñor na ko fas tey bu sëñ bi ñaan bu sëñ bi demee rek sa soxla fajo kon nag sëriñ Modou Mamoun sëriñ bi nee na xam na ne tey jii li la war bari na am na foo war a dem waaye doyalut ci ngan gi ci jàkkaarloo ak yow doyalut ci toog di wax ak yow njaboot gii nga àndal itam njabootu sëriñ aboo gii mu àndal di ay sëti sëñ Modou Mamoun di sëti maam Cheikh ñu teeru la fii njaboot gi kenn ku ci ne amoon na yéene yi luy teraanga rek mu defal la ko kon nag la maam Cheikh Anta defoon bi Serigne Touba ñëwee bàyyi ko ca nattu ba daa xaw jafe waaye kon defe naa ne kon danga seen fii nit kuntër ba muy teral sëriñ bi ba mu yàgg mu ne da ciy boole nit mu dem nettali ji ko waa àjjana nettali leen gan gi kon sëñ aboo dana ko def kon nag Mbàkke sëriñ bi dencalu la dara fii yaag ñi nga àndal ay dara fii seen kër sëñ Modou Gaye fii seen kër amul guddi amul bëccëg waxtu wu ngeen fi ñëwee rek nii rek taalibe yëpp di taalibe Serigne Abo ta jigéen ñii di taalibe Maam Jaara di taalibe Serigne Abo moo tax daayira Maam Jaara bii nga xam ne sëñ Muudu Maamoun moo leen joxoon digal ñu ñëw teew fii teeru la sant nañ bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne kon nag ndigal li daa xaw a kii. waaye ab taalibe moom. waaye ab taalibe moom. ndigal rek la am. ndigal rek la am. sëñ Abo bu ma joxee ndigal. di sëñ Modou Mamoun. di sëñ ma jëfe ko. ma jëfe ko. sëñ kàddoom. sëñ Fallou it kàddoom. di sëñ Modou Mamoun na ma mayit yaa may waxal dana xaw a metti waaye danaa ko jéem danaa ko jéem bu baax Mbakke ñun day sëriñ bi lu nu def rek matul xaaj xaajaatum lañ bëggoon ndax sunu maam dey maam Cheikh Anta mi nga xam ne moo tax ñu xam sëriñ Touba mi fii la joxe woon sëriñ Touba boppam fii joxe woon Serigne Touba boppam wala lu ko jiitu ba noppi ba noppi mu ko joxee boppam ba mu ko joxee jëlug weñ mu tàngal ko ba mu tàng ma nit ñi dañuy ñëw di ma wax ne maay sarak ma bëggoon nga ñaas ma ma ay ñaas ba buñ ñëwee xam ne bokkuñ dara sab taalibe laa foofee nun ñii àgg nañ fa suñ digg ak yow foo defe ne àggu fa rek weesu na fa te nun ak taalibe yëpp a ci ànd kon sëriñ abo lim def xeeb na ko lool waaye li nga nu andil moo ëpp lépp moo la defar rek li nga ñu andil ko ëpp ndax kasu rajab bari nay mbóot lool waaye mbootam yooya la muy bari bari sa wayjur bu baax wa di Serigne tuuba Cheikh Mouhamadul Fadal daf daan bàyyi lépp dikk fii ca xaritam ba mbokkam ma Cheikh Mouhamadul Mamoun defe ko fi moom defe fii kasu rajab ñu fanaanee bernde ba xëy mu waxtaan waxtaan wu neex tàggoo ci jàmm ak salaam mu wuti kër sëñ Afe Ñang loolee nag moom rek la sëñ Aboo di xeñtu kon sëñ Moodu Maamun neena moom. ba mu fi ñëw yàgg na. ba mu fi dalee ñëw yàgg na de. ba mu fi dalee ñëw yàgg na lool. biñ ko jébbalee sëñ Modou Mamoun. biñ ko jébbalee sëñ Modou Mamoun. ba sëñ Modou Mamoun def ci moom la war a def ci moom. am mbokkam moo xam ne. am mbokkam moo xam ne. sëñ Modou Rokhaya la tudd. muy ñëw di ko fi fekk. muy ñëw di ko fi fekk. mu am sax tur wu ko daan wooye loolee ba léegi. sëriñ Amidoune. sëriñ As Gede. sëriñ Jiili. ak ñi nga xam ne ñooy njabootu sëñ Modou Mamoun. kenn ku ne. da nga koo jàppoon ak sa fukki loxo. ngir jëmmi sëñ Modou Mamoun. te nag mata nga ko bu wér. ba tax na. la nga daan fekk ci sëñ Modou Mamoun rek. moo fi nekk ci sëñ Abo ba tey moo fi nekk ba tey nga ñaanalal nu nag sëriñ Abo mu yàgg fi lool te yàgg noo jiite ñu yàgg topp ci moom ndax sëriñ Abo kilifa gu neex a àndal la waxoon naa ko bu yàggut xaw ma ba xam ñi ma doon waxal dégg nañ ko wala déet. biñ joxee addiya ji ba noppi. dafa wax ne moom sëñ aboo njaboot gee def lépp. ma ne njaboot gi. sëñ bi dey wàcc na. nee na ñoo def lépp. waaye day trois cent dix million bu nee ñoo def lépp. bu nu weetee waxtaan ak ngegenaay. ak sunu ngegenaay. danañ xam ne sëñ bi dafa baax danañ xam ne sëñ bi dafa baax rek. waaye ku wéet ak sa ngegenaay ba xam lan ca def da xam ne defoo trois cent dix millions ya kon nag sëñ Abo mooy def lépp ba noppi jël sag bi jël sac bi jox na ko waaye kenn defut dara kon nag sëñ Maamun sëñ aboo léppam nga. loo ko ñaanal rek mu am. loo ko ñaanal mu am. Eh, moom itam. lum la ñaanal mu am. kon nag ñaan leen. njabootuk sëñ Modou Mamoun gii. sëñ Modou Mamoun nag ak njabootam. buñ ko tuddee. mooy i laal ci Daaru Salaam ak gaawaan rek. ndax ku sëñ gaawaan di sa wayjur sëñ Modou Mamoun mooy sa kon nag njabootu sëñ gaawaan gépp sëñ Modou Mamoun moo leen boole jaboote te njabootu sëñ Modou Mamoun ku ne xam na ne sëñ Modou maamun ni mu defoon ñi mu bokkal ndey ak baay moo doon nag taalibe yi sëñ Tuubaa yi ne woon ca daara ja taalibe yi ñoom rek la sëñ Modou Mamoun defal ñu bokkal ndey ba kon nag taalibe yëpp ñoo bokk sëñ Modou Mamoun bokk sëñ Fallou bis bii day na ma ne lu wa lu waay fas ci bis bi da nga ko am lu fi waay fas rek da ko am euh, ndax sëñ Fallou ginnaaw jaayante gii mu jaayanteeg sëñ dafa yan woon yan bu rëy. dafa yan woon yan bu rëy. ndax magante wutoon ak sëñ Mourou Moustapha lu bari. lu bari. ku tedd ki boole leen. ku tedd ki boole leen. jox leen liggéeyub jumaa jox leen liggéeyub jumaa ji. ak seen mbokk muñ bokkal. ak seen mbokk muñ bokkal. waaye kenn ku ne. waaye mu xamal la baatin. mu xamal ci baatin. loo xam ne. man xam mën naa liggéey jumaa ji. carrière bi ci la bokk. carrière bi ci la bokk. ku ne xam ko ne xam na ka ko gis. raay bi ci la bokk. raay bi ci la bokk. ku ne xam na ko ko andi. ku ne xam na ko ko andi. ak leneen ak leneen. ak leneen ak leneen. koo xam ne nag. koo xam ne nag. dañ na am mu am. koo xam ne dañ daan wax ne bu nee na am mu am. bu nee du am du am. bu nee du taw. bu ko neexee mu taw. bu ko neexee mu ba ko neexee sewet. Ah, kon sëñ bi kooku. ku muy ñu tuddee la sëñ Modou Mamoun. nga jël ci sëñ Modou Mamoun juróom-ñaari jikko. nga jël ci sëñ Modou Mamoun juróom-ñaari jikko. loo ñaan rek yàlla def ko. kon nag Mbacke ñaanal. sëriñ te jégal ma kan sëñ bi sëñ sëñ Modou Mamoun mii. léegi sëriñ Abo daa wax ne biñ ko andee ci sëñ Modou Mamoun. da koo daal di jox soxna Maymuna. Mm. way juru sëriñ am di mii sëñ sëñ mii. sëñ Abo mii. Mm. ba mu nee ca Touba daa ñëw ci Serigne Falilou moo bind ci aw xay kayitam na ko Abo Mouhamed tudde ko si Abo Mouhamed jooju nga xamante ne bii moom la ñuy woowee sëñ Modou kon yaakaar naa ne ñoom ñaar seen diggante tey jii moo taxoon mag ñi di ko faggu tey jii moo taxoon mag ñi ko fàggu kon nag Mbacke Balla lii la Serigne Cheikh wax ñaanal leen sëñ Abo mu guddi fan te ngeen ñaanal njabootam gi topp ci ginnaaw ndax njaboot gi ñor na sëñ Abo lool njabootam gi ñor na ko lool li fi sëñ Modou Mamoun bàyyi woon lay sàmm te nag yow yaay cërub sëñ Modou Mamoun kër sëñ Fallou kat li muy rëy rëy kenn ku ne am nga fa sab cër boo demee buntu kër yi yoonu murid yëpp a nga fa waaye nag buntu kër yi la muy bari bari Daaru Salaam moom sa buntu kër bi la ñuy waa waaw ndax ñoo yaay sëñ Modou Mamoun ci noonu te ñun sëñ Modou Mamoun duñ ko jëndee ku yàlla bind moo ñu gënal ñëpp sëñ bi sëñ Modou Mamoun ñu gënal ku yàlla bind sunub cër dañ koo fonk sëñ Fallou yow la tuddee sëñ Modou Mamoun kon nag na nga xam ne lii sëñ seex wax jaarale ko ci sëñ aboo dañoo bëgg bu ëllëgee booy ñëw ndab yi na rang wuti Touba nañ ko daan teeroo nga xam ne bu wàccee ci saxaar gi dañuy lal sër yi mu ñëw ci kër gi noonu lañ bëggee tegalee ndab yi ba doo doo def dara loolu moom boo ko ñaanee mën na mën naa am nag ñu ko ñaanalal ndax mooy yéene sëñ aboo kat sëñ bi nee na ñëpp a ngi jóg ndakaaroog amérique france di màggali kasu rajab ñun kasu rajab ci boppam ñëw fekk si ñu loolu mooy aajo ju faju nee na dara loolu bisimilah amin amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين